ñenn ci supporteru Paris Saint-Germain yi ñoo doon dal ci kaw Gana Gueye ba nga xam ne rek gaañ Kylian Mbappé ci entraînement ya loolee nag xas nañu ci milieu de terrain bi saaga ko ci yàq ko ci xeteme supporter sénégalais nag jugandoo nañu firnde seen taxawaay Idrissa Gana Gueye ci Twitter bi Mbappé nag dana def ay examen complémentaire ngir xam ndax dana mën a jongante donte examen clinique ba biralul lu graaw ci ab nataal sax bu mu fësal moom Mbappé moom ak Gana na ca ni ñoom ñëpp benn lañu naan ici c'est Paris euh, jongante Real Madrid googee ak Paris Saint-Germain ñel huitième de finale euh, retour bu LDC ñu ngi ko dëgmal ba ca Santiago Bernabéu